gannaaw ba président Macky Sall jeexalee li nga xam ni moo di état d'urgence ñenn suñu ngànk réew mi ñu ngi wëyal di wax seenu gisee ci bile ndogal ki nga xam ni moo fare ci parti APR bi nag di Ndiaga wadd jàpp na ni ndogal yi président bi jël teg na ko fu wóor bu ñu sukkandikoo ci moom nit ñi dañoo war a xool tey jile nu ñuy dundee ak mbas mile te président bi wane na yoon wi tàmbalee ko ci économie bi mu bëgg yëkkati waat. président li mu jël lu jaadu la. parce que aussi tamit euh, euh, Covid bi bi muy doog a dugg Sénégal comme tout comme réew yëpp niñ ko doxalee ah euh, kenn xamul nan lay ñëwee nan lay duggee mesures yi réew yëpp jël yooyu mesure rek nga mën a jël xool ni dañ confiner nit ñi et cetera noonu lañ mën a jël mais bi ñu demee ba xam ni nag lii war nañu mën a dund ak moom jógee gu fi ah te économiquement suñu réew mën na daanu yàqal bi lu bëree bari léegi président nit ñi nañu jël lee mesures barrières yi nga xam ni moom moo war ñu jéem a xool lan la dundeek feebar bi pour vraiment ñu bañ ñu yàqal lu bari quoi. conseiller municipal bu maire cees Nord bi lee nee na Macky bàyyiwul benn yoon askanam ba jàpp ni sax président bi lu wër la teg ngir mën a daan jàngoro ji di Covid 19. non loolu du abandonné population bi ça veut dire que li ñu mën a wax sax ni population bi la àndal parce que tamit boo gisee ni euh, dem na ba gis ni. lii jógee gu fi comme ni mu ko waxee gan bu ñëwee te bëgg gu la ñibbi xamagoo ni muy demee loolu dangay ngay essayer di dund ak moom. waaw parce que boo xoolee économiquement Sénégal mi ngi doon jëm foo xamante ni baaxul te li ñu war mooy ñun ñëpp ñu fexe respecter les gestes de barrière li mu wax nañ ko respecter takk maski yi et cetera buñ ko defee buñ ko respecter ñun ñëpp yaakaar naa ni loolu feebar dina fi jóge. Ndiaga nag nee na tiitul benn yoon si yi leen ndogal gannaaw sax nemmeeku yi nga xam ni ñi ngi koy amal si yokkute cas communautaire yi. waaye moom de jàpp na ni ndogal yi mooy li fiy jëlee mbas mi réew boo gis bi muy déconfiné ni mu nombre de morom moo ëpp nombre de cas moo ëpp parce que dem nañu ba xam ne lii il faut ñu essayer de dund ak moom vivre avec lui looloo tax ñu jéem a xool nan la ñuy déconfiné mais loolu boo gisee nii di ko wax loolu gëm naa ne ñàkk xam-xam na ñu dégg ñu naan Sénégal bi muy am benn cas sept cas la ñuy confiné nit ñi bi ñuy am mille cas ñëw kii loolu réew boo gis ci àdduna bi bi muy boobu la ay cas gën a bari kon mënuñu taxaw confiner nit ñi nit ñi bañ a liggéey et cetera loolu mënul nekk il faut ñu essayer dund tamit feebar bi comme ni fi yeneen feebar yi nekkee aussi. semaine lëmb ginnaaw bi fi état d'urgence ak couvre-feu jeexee ci mim réew teewul ba tey nit ñi di joxe seenu kàddu ci yile ndogal rawatina yenn sénégalais yi amee titange di xalaat agression ak sàcc gi tàmbaliwaat ci mile réew.